الحمد لله الذي جازي لنا سلوك بالخير والمفازي هل أنت bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun noo ngi delloo suñ bopp ci yàlla mi nga xam ne lu am rek mooma di am lépp ci coobaram ci lay am di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant Cheikhul Khadim di ñaan jàmbaari lislaam ji nga xam ne di jàmbaari yoonu murid moo fi bàyyi ko tey sëriñ sama borom tàbbal ko aljanna ya gën a kawe te muy aljannay firdawsi yoonu murid yëpp ko ñàkk ñàkk nañ jëmm joo xam ne ku ku ni ko arab di waxee naadir nit ku nit ku néew ci jamono ndax tey ñaata million yi nit ñoo nekk ay Hizbut Tarqiyyah ay xale di tàmbale ci seenu ndaw ba tey ñu doon sipp am ay bijjaaw mu fexe bañ tege ci siraatal mustaqim jàng li ñu war a xam ci diine jàng li ñu war a xam ci àddina walbatiku doon ay taalibi Sëñ Tuubaa seen dund gépp ñu jeexal ko ci Sëñ Tuubaa loolu ab liggéeyam ab liggéeyam dëkk bi tamit kenn ku ne gis na taxawaay bi mu fi taxaw waaye boo ñëwee ci xasida Sëñ Tuubaa rek liggéey na ci liggéey boo xam ne kéemaane na ndax bu njëkk ay xam ngeen jàng ngi fi amoon ñun ñëpp ñu daan ko dund. waaye def nañ ñoom xasida yi noo xam ne mboolem fu daaji mag ñi nekkoon ñu jëli ko ba ñëpp xemem ko ba ñëpp xemem am njàng fenn fu nekk njàng mu yegg fa loolu liggéey bu Hizbut Tarqiyyah la mm-hmm. waaye ci ndimbal loo xam ne Serigne Atou Diagne moo ko moo ko liggéey li jafe ci àddina nag mooy tàmbali mbir yeggale ko. Mhm. te ku ne xam ne ni sëriñ Atou loolu la ko sëriñ Touba defal. mooy mu tàmbali mbooloo. Mhm. yar leen ba ñooñu xëy doon ay bijaaw am ay sët. Mhm. te mbooloo moom dara mejju ci. ñuy gën di bëgg sëriñ Touba di gën di tege ci siraatul mustaqim ba tey lii mu am nii néewaana ah man de yàgg naa ci dëkk fi laa gane ba am juróom fukki at waaye li mosum fiis kon nag ñu xam ne nit ku baax a ngi nii. taalibe sëriñ Touba ngi nii ku bëggoon sëriñ Touba ngi nii. dëgg yàlla nun loolu rek lañ xam ci moom jaxasoo nañu moom ci lu bari fu ma mës a gis ne ma yow de ñoo bokk baay ndax baay ba sans baay la kon loolu wane na ne joxoon na ma cër waaye lu la gën a lii gën a marqué sëriñ atu ci nit ñi mooy soo ko gisee nun ñii di ndaw am ay ñeent fukki at ak juróom fukki at moo nu gën a kàttanu ci sëriñ bi te juróom ñaar fukki atam benn ci des kon xam nga ne ay atam bari woon na waaye bu jógee jëm ci sëriñ beeg laxasaay gi da nga naan kii xale bu ndaw pëste beeg kattan geeg lépp day feeñ ci ci sëriñ Atou kon yàlla na nu ko yàlla na nu ko yàlla fayal. waaye nag euh, borom moom ba muy wax ne. ba muy digle dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim waaye lan la ca wax tuminuuna billahi wa tujahiduuna bi amwalikum wa anfusikum mhm. te loola ca sëriñ Atou nekk ba xëy ba xëy ba xëy ba xëy dem mag ñi nag dañ daan wax ne gàddaay ñibbi bokku ci mhm. te dafa gàddaayoon fekki sëriñ Tuubaa si dëkk bi mhm. liggéeyal ko fi liggéey boo xam ne ku xam xam nga ne xisbu tarqiya am na solo ci dëkk bi lool liggéey na ci yoonu murit lool jëlee na daayira ci zéro yóbbu ko ci junni tey bari na daayira yoo xam ne buñ fi amee ginnaaw yàlla roy xisbu tarqiya rek moo tax moo tax daayira yooyu am wax dëgg fa yàlla kon yàlla na nu ko yàlla na nu ko yàlla fayal boole ko ci ñi nga xam ne alquran day wax ci ñoom ne wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu al mawt faqad waqa ajruhu ala suñu aatu moom boo ma laajee ci moom damay sawar a wax ndax ku ne ku ne xam na ma sama diggante ak moom ñi ma xam ñëpp xam nañ ko sama diggante ak moom te xam ne waa këram sax xam nañ ko ni ma demee ak moom nga xam ne jëmm jooju yoo xam ne sëñ Tuubaa rek ndax man Masaalik laa nekk ku ne xam na ko waaye joxoon na ma waa Thiaw boo xam ne dama ay conseil bi sax laa bokkoon conseil nga xam ne ko def loolu ñoom Youssou ñëpp xam nañ ko si ma ba pare boole ma sax ci daara Dakar laa nekk de mais damaa boole ci daara ma nekk membre boo xam ne lu ma neex sax bu ma ñëwee bu ma ko la waxee dañ ko def tëjlu ma portam bu dëb yëpp la ma ubbil ñëpp xam nañu loolu sama diggante moom nga xam ne ñoo fi teewal waa mba sëñ Mbàkke yu Masaalikul Jinaan dëgg yàlla kon ñu ngi koy jaale yoonu murid yëpp yoonu murid yëpp a ñàkk yoonu murid dafa mel dafa am bànqaas bu rëy bu fa jógee bu daanu ndax moom li mu formé rek ci yoonu murid li mu formé képp rek loolu bu ko yàlla fayee waxu duñ ko sànq tumal li mu réalisé ci yoonu murid murid gi moom mënoo dugg fen rek te gisoo du suñu aatu ñëpp la jox lu wàccaay mën na ma jur nga xam ne man daanaka ci fitna laa nekk tey moom war na Sëñ Tuubaa ci ndax dafa mel sama waajur fi jóge sama waajur soxla fi jóge ndax mayoon na ma loo xam ne moom ci boobu boobu nit na ma ko mayal ci boobu barke Sëriñ Tuubaa loolu moom kon dañ koy ñaanal rek fay mu tëdd ni te moom ndax ba jóge te doo gis te lii lii xew nii kenn musu ko gis man ba ma juddoo ba léegi musu bi ñuy defee ba léegi may ñëw fi musumaa gis lu mel te loolu naan ko ñaan ko nangu rek la moom léppam Sëñ Tuubaa xam ne saa bu ma gisee bu ma gisee moom day taxaw na ma paas bu nga demee Dakar maa la koy jox ndax xasité yi nga Masalik jëy suñu laa yor 313 yi nekk Masalik man maay jëriñ ci waaye xasité rek la la may xoole fii mu tëdd nag ñëpp nañ xam ne liggéeyal sëñ ndax ñi fi ñëw sax xam nañ loolu moom ñëpp seetlu nañ lii kenn mosu koo gis rek ñëpp nañ jaajuwaar rek xam ne yi yoonu murid nag ñàkk na loo xam ne moom duñ duñ ko amate nañ ko am moom ndax yoonu murid du fi jógee rek gën a yéeme ñi fi ne nag ay jàmbaar lañ dañ laxasaay war rek te xam ne ci eh, ci armée lañ nekkoon am na ku fi jóge bu fi jógee ñi fi nekk taxaw sooyee rek liggéey bi doxaat te liggéey bi day gën a yéeme sax ndax moom moom Mourou Sarr la du fi bàyyi dara muy kii ñëpp nañ ci du laal suuf liggéey bi sax moo ci raw ndax yàgg na 40 ans mi ngi ci nekk di doxal di doxal te liggéey bi mu def nii a ah, jàmbaar la de de jàmbaar ndax lii mu def nii de wax dëgg yàlla formé ay nit état bi amoo fan fooy dem foo xam ne ci suufa maam Ilaas Darxee boo xam ne moo ko formé ak sëpp nag kon nag loolu yàlla da koy fay ñu ñaan nag yàlla na ko suñu tuwaa rek suñu fàllu ñu ngi lay sant bu baax a baax laaj bi nga laaj ndax neex nañu loolu ndax moom daa bokkoon ci ñun boole nañu ci boppam wax dëgg yàlla ñu ngi sant baax jaay